maaleykum. maaleykum salaam. Mor ngi waay Mor. Mor Mor Mor Mor bur na mën naa la. man de ça. bur yaa ngi am jàmm. maa ngi sant. alhamdulilah toogal. naka coono yi sant yàlla bu baax. alhamdulilah waay góor ak waay. Maodo na nga def. sant yàlla. yaa ngi am jàmm. na def ak coono. sant baax. alhamdulilah. arikalla na nga def ak liggéey bi. sant baax a baax mbokki fan nag. waaye xanaa nekk ci ak yooyu di naaw dama ko ñëw tukki rek. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la tukki rek dëgg la dëgg la xam nga rek yéeg wàcc bi. dëgg la waaw xam nga bagage yi xawoon na jafe temps yi. dëgg la mais bërki dem moom. Uh-huh. dëgg yàlla. Uh-huh. Euh, damaa demoon Chine. nga ne. damaa demoon Chine. Ah! waaw lu xew ah xaaral ma daw woote fii ba tey ah